ma neex na ma sërëmbam taram sum daram sum daram diiram salaam naa def monsieur ça va ça va donc kii pour déposer sama CV dama dégg temps yi mbatal mi da ngeen ay jeunes journalistes ma ne woon fi sama CV ngeen xool soxna si xam nga yéex a ñëw ah, parce que guddi na mais bàyyi ba demee nga déposer ko secrétaire sëñ bi doo si jàpp rek ngir yàlla yàgg naa di déposé depuis 6 mois dama sonn fu ma dem dañ na ma dinañ la woo boobu ba tey dégguma dara ok niveau troisième boo xam nga ne sa niveau c'est un peu faible mais je crois que nga ne ñaata bière ni ngay wër. dem naa fépp foo xamante bépp entreprise dem naa fa. dañoo dof wala hmm? six mois yaakaar woon

mais bu am dara loo ci inquiété parce que après man ma lay accompagner ba sip kër. appelle-moi s'il te plaît là non. Kiné comment. Kiné Diop. mais yow Kiné ni ñu def man ba xaw ma la ci kon bi nga dëkk ta xaw ma la. li may génn du bari moo tax. ah da 594. bon j'appelle ni le travail est déjà acquis hein waaw euh, merci jërëjëf attends s'il vous plaît toogal bon je n'ai plus de mots hein. allez allez bonne journée merci daal góor yàlla taxawaay ay kool na ngeen def naka mu yeneen Mbartalmi TV waaw daa jëfate Fall kontaanuñ ci yéen de waaw euh, la fois passée ma sa zeng kii fa doon sàcc te ñu jàpp ko noonu AC5 ki fa doon sàcc te ngeen filmé ko mu tax aduna ok ok ba est-ce que xam ngeen carrément ni yéen nit ki waroo koo filmé moom sangam accord kon loolu moom erreur top la moom parce que moom moo doon monté bagage foofu la erreur bi nekk nag yéen en tant que des journalistes bu ngeen wàccee ci terrain bi ba nuppi da a war a dem ngeen toog bu monteur bi di monté ngeen toog yéen table monté naan ko lii carrément def ko mu fulu mais yéen da rek après ngeen jox ko léegi man mais mais tamit yàlla sax dafa bëgg ko suturaal doomu aadama non sàcc bi xama tey sama mbokk yëpp ñi nga xam ne mosuñoo gis ne damay sàcc sax si ñun damay sàcc wala boo xama gaa loolu naay su ñoo bokk job bi nekkoon bàyyi mu demee neneen de wala ma xool li yàlla micro bi ah ma xool jàmbaar bàyyi taxawal wuy ma alalu di baax la yoon da ma xool ma xool waaye jàmbaar ma ne ma xool bàyyi bul ma yëngal waaye lii alalu ndibaa la yoon teg na ci loxo ma xool daa jëf yéen ay jàmbaar ngeen liggéeykaay bi ngeen def nii waaw si waaye bërëbu liggéeykaay bi bu xamoon loolu du ma kii gaar